yéen ñi nga xam ne yéen la dénk liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci barke Serigne Touba yàlla suñ borom defal leen ci ndimbal defal leen ci tawféex ndax jëf jutul nii kat ko am tawféex ndax Serigne Touba dafa waxoon ne yéen taalibe na ngeen sant yàlla bu baax ndax ëpp leen yeesu leen gi ñu jàpp leen bu ngeen ëppoon. damay ñëw ba ba dem ngeen door a ñëw bu ngeen yéesoon itam da ngeen di ñëw ba ba dem wax door ñëw gimiñ jàpp leen itam ndax day jëwu leen a ba noppi ñàkk maa nangul kon yéen itam dangeen ngeen sant yàlla ndax bu leen yàlla defalee tawfeex ngeen dëkk ci dëkk bi ñenn ñi seen waay ju newoon fi di liggéey Serigne Touba ku mel ne Serigne Khadim mi doon wax léegi wax na wax ju solo waaye ko xam baayam xam ba siif ma taxawaay bu la bett ñenn ñi itam àdduna dox bañ toxu si ñëw ci dëkk bi kum ci mën a doon rek tawféex la ju suñu borom defal ndax dëkk ak Serigne Touba kat tawféex la ndax foo xam ne fo ku yaakaar Serigne Touba boo fi bàyyi ko bëggoo ñu yóbbu la fenn furul fii bu la suñu borom defalee tawféex nga dëkk ak Serigne bi te Serigne Touba fàggul la ci dëkk bi loo xam ne lépp loo bëgg mu yomb loo jaay mu jar loola la ñu war mooy delloo Serigne Touba njukkal. delloo sëriñ bi njukkal nag dara jiitu ci dara jiituwu ci lii bokkoon ci ay naalam mu fas ko fasoon ko yéene sëriñ Mbàkke Buso bind ko njabootam gi fi ne yëpp it ko yéene tàmbali tàmbali woon ko Cheikh Abdoul ba àgg ci Cheikh Maodo Mountakha suñ boon def mu nar a sottee ci loxoom yàlla na àgg ba mu ubbi ko te ni mu ko bëggee rek mu amee noonu kon bu ngeen amee taw feex mu sas leen ci sas wutoon nii te yéen ñëw sàkku ci ko mu jox leen ci ndigal wax leen kàddu yu soññee yu rëy yam leen wax kon la ci res mooy jom ak yitte te xam naa ne am na ci ndax tàmbaleegu leen te li ngeen dajale mën naa sori ci liggéey bi kon nag rafet nañ njortu ci ne ni ngeen ko tàmbalee ak ni ngeen ko bëggee rek dana demee noonu kon nag yàlla leen ci yàlla defal ndimbal defal leen ci feex defal leen ci barke ba gën a barkeel seen liggéey bi yéen ñëpp ba kenn ku ci lam ci yéene jëf moom kàttu mun ko cee jëf te dara bañ koo gàllankoor te seenoom xel dal ci bu baax nag te seen jot rafet ci ngir xam ne Serigne Touba dafa waxoon ne bi mu nekkee ca géej ga da doon sonn lool ci def fàggul taalibe yi xéewal mujj suñu borom xamal ko ne ko looy fàggul taalibe yi ci xéewal de nañ leen ci booleel méccam commerce ndax mooy xéewalu mujj jamono Serigne Touba wax ne maa daal di bind ne ahaddani jannaati addin tajri min taxtiha al anhaaru maahil xijri nee na bi ma ko waxee nag xéwal daal di sotti ko lool bare ak mbewte tàmbalee dugg nit ñi ñu di ko def fu ñu ko war def nee na ma am ci jaaxle lool sama digge sama sama borom ma laaj yàlla suñu borom ne ko lii de damaa xamul lu ko waral nee na suñu borom xamal ko ne ko dangaa bindoo ne addani jannaati addin tajri min taxtiha al anhaaru maahil xijri looloo waral. mbewte gu dugg leen Serigne Touba nee ko ne ko nu may def nee mu ne ko soppi noon gi ak laam Serigne Touba soppiwaat noon gi ak laam wax ne addali jannati addin te min taxti anhaaru mahel xijri mu ne ko kon xéewali dana ñëw te ak mbewtu dootu doon tàbbi kon yéen itam na ngeen dafa njort te xam ne ci biir ñaan gu tàbbi ngeen ta ngeen bokk te Serigne tubaa waxoon na ne sama mbir mii kat suñu borom xamal na ma ne Cheikh Issa Dieng la ko waxoon haza ata una fam nun awam sikk bi xëyri xisaabin kon loolu lépp pàggute fi Serigne Touba la kon ñu ngi ñaan bis bii nga xam ne bisu barkeel la bokk ci bis yi ñuy dàkke guddi laylatul xadra Cheikh Mouhamadou Mountakha jox leen ko ba ca desaatit mooy bis bi nga xam ne ak Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne ku jariñu ci Serigne tubaa rek ci moom la ko yàlla jaarale bis bi la dajewoon ak Serigne Touba kon na ci xel yi yëpp dal njortu rafet ci te xam ne lii rek ab tàmbali la boo xam ne bu liggéey bi àggee itam jàpp leen ne ni ngeen nosoo ak ni ngeen organisé wu ak ni ngeen war a liggéey de Serigne Touba waxtu wala a jot ngeen ngeen ngeen gën xam waaye doonul liggéey bu jeex ndax jaamu yàlla moom li yaa ngi ne ci kaw suuf rek suñu borom da koy waral ci yow waaw bu dabbaka xataa yeeti yi nga joxeen liggéeyal itam ku koy def ku ne sa bopp nga koy defal ndax euh, Serigne Touba waxoon na sëriñ ma Massamba Diouf Samb ne ko Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko mbaa xam nga ne ak daam saat la mooy denc ko ay mu ne kon de mbàkk ñu fas yéene doone lantinoor rek mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu faa amul diw danaa yëkkati la nga la nga ma joxoon ne la sa kon li ñuy defal Sëriñ lépp nañu xam ne dénkaan la moo tax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké da daa wax ne man de nit ku ma jox addiya du ma ci gërëm kenn am dencal ma rek la nee na buñ la dee jox addiya te doo joxe addiya yaa ngi mel ne ku yor wu gàll ku fóot ay yéreem ba mu set mu jël ko ne la dencal ma nga def ko ci walisu ba mu fees nee bu demee ba yaakaar ne ba fe ba fees nag nga yaakaar ne am ngay yére yaa ngi nax sa buñ demee ba àgg ca bisub daje ba nee na ku ne laajum boobu nga yëkkati ko joxe bu fekkutoon nga dugal sa mbubb ci biir boobaa keew da nga am kersa kon nañ xam ne jëf ci Sëriñ Tuubaa noonu la demee kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. la Pape Diop marché bokk ci commité de pilotage regroupement des opérateurs de Touba ñu koy wax Royet ñi nga xamante ni si ñoom ñoo jëloon initiative jëleen digal ci Cheikh mun Mountakha xalif général des Mourides. pour initier ñaari amphithéâtre fii ci université bi nga xamante si moom la ñuy defaral maam Xaadimul Moustapha. amphithéâtre yi dañuy wax ni dañuy defar fii ñaari amphi amphi bu ci nekk dafay nekk 500 places amphi bu ne coût de manœuvre ko estimé woon ci 400 millions kon ñaari dafay mel ni dafay nekk 800 millions ci engagement boobu ci lañ nekkoon di ci dox di ci liggéey ba tey jii ñu ci pose première pierre. démarrage effectif des moom mooy nekk li nga xamante ni si moom moo ciy topp parce que comme pose def nañ pose première pierre. pierre bi am nañ entreprise boo xamante muy Afrique bat déggoo ak moom ci modalité de travaux yi kon donc dafa naan li ci des mooy ñu ko dem ci liggéey bi directement. waaw durée bi nga xamante ni moom lañ ko appal ak liggéey ak suñu conseiller technique yeeg ak entrepreneur bi yëpp dañuy wax dañu nekk maanaam nekkaat ci yeneen liggéey yoo xamante ni maanaam dañ ciy jot ndigal ci sëñ bi incha allah yi de dañoo yéex a ci liggéey bi man du ma jàpp loolu c'était euh, organisation la ak méthode parce que tamit lu toy ni ñaari amphi yoo xamante ni huit moo koy defar mënoo tëb tëb benn jour rek du jour au lendemain rek nga taxaw ci xam nga liñ doon dox dans le silence amul woon presse amul dara da jàpp ni peut-être yi dañoo yéex a dem nañ a euh, a ba dem a liggéeyal kon loolu dafa nekk procédure boo xamante dafa gudd kon loolu moo waral peut ñi nga xamante ni dañoo nekk ci biti te comprendre li nekk à l'intérieur ñu jàpp ne dañuy yeex mais yeexuñu woon ci liggéey bi lañ nekkoon ndax loolu lépp ci processus la bokkoon